dof dee muy émission boo xam ne ni kaf ak yéen réeg yéen dem ci marché yi waaye nag di ci dugalaale lu am solo te mooy lan wax leen ni na njaay mi sell nay seet na marché yi seet ndax li ñuy def ci koll daa war di sell kon lépp naa doon sell per na dañ sa ah. marché dem fekk marché ba taak ndox waaw wala njaay ma seer marché bi la ñuy bloqué. dañ koy jël ñu ko rat. jusqu'à nouvel ordre. brigadier Pierre ñëw. ne la juróom ngay jaayee. waaye koy doon. yéen a ngi koy man lii laa yàkkamti ci yow lii laa yàkkamti. waaw da ngay dóor xeex rek laa yàkkamti ak yow. mun a bàyyi booy wax naan may par A et par B ah. waaw yow laa ñu doon. yéen ko yéen ko. mënoo Balla Gaye. mënoo Balla Gaye. mënoo Balla Gaye. laa ko ñam. maa la ñam. yaa ngi jooy laa ko ñam. maa la ñam. laa ko ñam man Balla Gaye dee ma yow bay leen ko waay. perte ko do. laa ko ñam. maa la ñam bañ a maa toll. laa ko ñam. maa la ñam. dugg ko dugg ko yaa dugg ko yaa dugg ko atar dugg ko Sénégal ngi